mosul football ca Liga Santander ba waaye dina fa football fekk na fa nag ku ko xam lool muy Jorge Sampaoli mi nga xam ne moo ko doon tàggat ca Marseille moom mooy tàggat club boobee di FC Séville Séville nag ni ñuy doxee ca Liga Santander ba baaxul dara ndax jamono ji ña nga ca fukk ak ñetteelu place ba muy treizième place ba loolee tax na nag ña ngay dolli seen dooley club boobee doomu Sénégal bii nag waa FC Séville wóolu nañu ko rawatina ki leen di tàggat di Jorge Sampaoli ngir mu jàppale leen ca liggéey ba gone gi na technique bu demee foofee ca Liga Santander ba jàpp nañu ne dina fa doxal ndax Liga boobeekat technique kese la laaj moom Pape Alassane Gueye technique boobee ma nga ca moom xaatim na fa contrat ab bu képp la nag bu saison bi jeexee day delluwaat ca Marseille muy champion d'Afrique bii di Pape Alassane Gueye kon nañu ko ñaanal mu doxal Marseille googee nag yàgg na fa yàggu fa ndax ci atum deux mille vingt la fa dem kon am na fa ñetti at la mu fa football ci ay match nag mi ngi toll ci cent match téeméeri match la football foofee ca Marseille dugal na fa quatre bit muy ñeenti bit muy Pape Alassane Gueye jugee na fa nag dañ ko able ci Séville officiel na kon ñaanal leen ko mu doxal ca Liga Santander ba maa ngi leen di laaj nag ci commentaire yi